UCAB FM li gën a fës yen yéene kaay Papa Saer Mbaye simili altine ji ñu romb amal nañu am ndaje mu yaatu ñu koy tuddee conseil interministériel nguuru Sénégal lañ ca doon waxtaane bokk na ca rek lu jëm ci wàll accident yi ñu nemmeeku ci yoon naka lañ mën a bëgg koo mën a wàññi yéenekaay yu bëri xëy di xam rek ne yokk kaaraange yoon yi kay loolee lañ ci jubloon tere gu tere ko ñi di transporteurs yi ngir rek ñu teg seen ay oto ci xàll wi lu ko weesu fu fukki waxtu benn di onze heures ci guddi jàpp juróomi waxtu yéenekaay yu bëri ñoo xëy di xam le rek ne bokk na ci leneen jëm na ci wàlluk anam bi nga xam ne kon moom la nu may képp ko yore oto transport nga di ko jëfandikoo mu doon fukki at dong lañ la may bu ko rombee amatoo sañ-sañu rek di ci def ab transport yéen kaay xëy di fu yoo xam ne lu jëm ci wàllu yi nga xam ne kon moo war a yóbbu marchandise moom fukki at ak juróom lañ leen may sunu naataango ne loole bokk na ci ay poñ yoo yi nga xam ne kon jot nañu ko ci ay yëkkati yéen kaay moo xëy di xam la rek ne niki tey jii kon moom la ñu fas yéene tàmbali jëfe lu mel sunu naataango yi quotidien ñooñu koy net sunu naataango yi ba tey di xam la rek niki tey ji mooy waxtu dëgg wi ñu xool ndax dëgg-dëgg li nga xam ne kon moom moo di nguur gi li mu xam kon moom la euh, samp rek ndax danañ ko jëfe waaw wala déet kaay bi xëy di xam rek ne loole tey ji lépp dana leer ñu mën a xam dëgg-dëgg matuwaay yi nga xam ne kon ilimaane joriñ ji jël na ko ak ñi nga xam ne kon ñoom la doon waxtaan yi euh, juróom-ñaar ci ñaar yi nga xam ne kon moom la ñu teg tey ji kon lañ ko fas yéene tàmbalee jëfe ndax ñetti fan yi nga xam ne kon may woon nañ ko kon tey ji lan na egg ci àpp bi Le Quotidien yéenekaay ba tey xëy di xam la ne jamono ji nga xam ne kon euh, gis nañu ko rek dëkkandoo bi nga xam ne kon ñii di way transporteurs yi ak ñii di askan wi loolee nga xam ne comme lañ dëkkee yéeni kaay bi moo xëy di xamal ne nag faaw nag doxalinu moom danañ ko soppi ci ñii di askan waaye tam ñi nga xam kon ñooy yore wàllu ko dem ak dikk bi su naataango yi di critique ñoom ña ngay sàkku uh, ci njiitu réew mi ngir rek taxawaay bi nga xam ne kon taxaw nañu ko ca moom njiitu réew mi di sàkku nag ci mboolem jëwriñ joo xam ne kon mbir mi rek sa loxo war na caa dugg nekk ci àllarba ci conseil bi nee na nag loolee moom nanu ca taxaw te nag amul ab xaar dara amul benn app boo xam ne ko may nanu ko ca application boo xam ko war nañ ko caa def yéeni kaay bi xëy di xam le rek na lanu sàkku tam mooy rek mbir mi moom buñ ko beru rek di ko def nan ci waxtaan ak ñëpp ñoo xam ne kon séq nañu kenn ci ne lan la ca war ñu fexe rek ba nga def ko ca na nga xam ne kon noonu moom moo tax ñu jël lu jëm ci wàllu dogal yi bi xëy di xamal ne gën naay yokkati ñeen fukk ak benn doomu aadama fi mu toll nii ñoom la ñu ca wàññi ñoo ca faatu yéeni kaay bi xëy di xamal ne na ci keneen koo xam ne kon ci ñi amoon ngay gaañu-gaañu na bi li xëy di xamle ba ma nga ca taxawaay boo ko ñoom la ñu bëgg mooy kilifay nguuru Sénégal enquête bi nga xam ne kon moom lañ fi doon junj mu jëm rek ci wàll ay luubal yoo xam ne kon yelleefam ci wàllum koppar ci bi nga xam ne kon moom la ko a xam koppar bu ne fan lañu ko bi di xam le rek ci fi teewal Fonds monétaire international ci Ndakaaru moom nag yëkkati na ay kàddoom gis day loole danañ ko topp ci na nga xam ne kon noonu la ware yéenekaay bi ba tey di xam le rek ne du mën a ñàkk nag ñenn ñoo xam ne kon tudd nañ leen ca wala ñu luubal ca dara ñoom nag du ñàkk ñu dem ci kanamu yoon ngir mën a leeral xaalis bi nga xam ne kon moom la ñu luubal fan la ko dugal bu ñuy fàttali FMI doon Fonds monétaire international moom nag dugal na ci li nga xam ne kon moom moo di loxoom ah, ah, ak ci ah, taxaw gu doon nañ ba tey ma nga yëkkati ay kàddoom di xamal li nga xam ne kon moo jëm ci wàllu taxaw di xam le rek ne daanaka lépp loo xam ne kon jamono ji ñi nga xam ne kon ñoom ñoo ni waa cour des comptes rek li jëm ci wàllu ko woowule taxawaay boo xam ne kon taxaw nañu ko ca ñoom nag daanaka daanaka dañ leen a forcé ngir ñu dugal li nga xam bi ci askan wi kay mën koo xam ci internet bi le ne loole nag doon sàkkuteef goo xam ne moo tax daanaka askan wi ñu ci wëri jot ci yéeni kaay bi ba tey xëy di xamal rek ne document boobu nag jamono ji nga xam ne kon askan wi daanaka kenn ku ci nekk jot nga ko loole nga taxawaay la boo xam ne kon waa FMI rek ñoom ñoo leen sëkkatal ne nag faaw moom danañ ko fësal ñu mën a xam lu ne fu ñu ko dugal enquête yéen kaay ba tey ma ca beneen opération boo xam ne kon jamono ji nga xam ne kon ab opération de déminage la ñu ko tuddee ci entreprise yi nga xam ne kon gouvernement bu Sénégal moom moo jóge loolu mais yéen kaay xëy di xamal nekk ne rapport d'audit yi nga ne kon cour des génne na ko ba tey luñ ci mën di nemmee ko rek yéen kaay mu ngi ñuy xam le ne bu tàng jër la boo xam ne kon mi ngi ci loxoy gouvernement bi nga xam ne fi mu toll nii de lu ne ma ngi koy jëm ci ay pexe ngir rek jéem a dalal xelu askan wi waaye dam ñii ay partenaire am luñ ci mën di nemmee ko rek su naataango ñooñu ñuy xamal ne moom mbir moom du sedd dara ci ñoom ndax nag luubal gi nga xam ne kon ñenn si ñoom luubal nañu ko lu jëm ci wàllu koppar gi waaye tam ñu teg leen loxo ci wàllu wu ni mel su moo xëy di xam la rek ne loole nguur gi nag la mën dafa génn ci lu jafe lay doon Walf Fadjri quotidien ba tey ma nga ca caleerul goo xam ne kon caleeralo gu dañu ko ko ci kilifa nguur gi jëm ci wàllu ko dossier yi nga xam ne kon bu ci mel ni Fulbert Sambou ak kii di Didier Badji yéenekaay bi moo xëy di xam la rek ne jamono ji ñii di seen ay jege ñaan doon seen ay mbokk day ñoom metti na leen lool te nag jóg nañ yëkkati ay kàddu loon ci man di nemee ko day ñoom taxaw nañu temm nee na nag yeexaay moo jëm ci wàllu ko faatu gi nga xam kon a lan ci wàllu ko taxawaay bi nga xam ne comme lañ chef bu gendarme bi nga xam kon moom dafa réeroon ay ay yu bëree ngi nii su moo xëy di xam le rek ne lañu bëgg rek mooy ñu leeral ay mbiram l'observateur yéeni kaay la ko ñor bokk na ci faatu goo xam ne kon lu toll si juróom ñaar fukk ak juróom benn ci ay doomi aadama ñoo faatu ci hôpital dalal jàmm bu ndakaaru yéenekaay bi xëy di xamal ne luñ ci mën di nemmeeku day faatu googe ñu ci bëri dañoo njort ne paan goo xam ne kon scanner ba da ko paan bu ñu sukkandikoo su naataango yi mu doon ab jafe-jafe boo xam ne kon jamono ji am na lu toll si juróomi ñoo xam ne kon danoo tawat ci wàllum cancer fi mu toll nii nag ñoom njàqare dëggantaan la am seen ko dund ñaari yéenekaay di laas ak vox populi yéenekaay la leen ñor bokk na jamono ji nga xam ne kon moom na ñuy jëfandikoo lenn rek ci ay garab su naataango yi xëy di xamal ne bëri na ci nag ay garab yoo xam kon ñoom ñooy lor na ci ay xam ne kon eh, jamono ji nga xam ne kon daanaka ay jafe-jafe dëggantaan lay indi ci wàllu wér garam bi yéenekaay bi xëy di xamal kenn koo xam ne kon xam-xamam dafa màcc lool ci wàll wi moom nag mooy artu askan wi Vox Populi yéenekaay xëy di xamal ne luñ ci mën di nemme ko day agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique ñoom nag amal nañu ak fàttali goo xam ne kon jëm na eh, ci lu toll rek ci lu toll si ñeen fukk ci ay loo yoo xam ne kon kon dañu ko indi rek ci wàllu ko li nga xam ne kon moom moo di biophar vitamine C euh, bi nga xam kon moom la jamono ji ñoom nag jamono ne luñ na ci beneen euh, garab boo xam ne kon moom loo xam ne kon soppi couleur ba ak melokaan wa loo xam ne kon dañu koy faral di gis mu doon loo xam ne kon indi na ay jafe-jafe itam euh, ci wàllu ko dund gi Sud Quotidien yéeni kaay moom nag fësal na ci li nga xam kon moom moo di kàddu professeur Kader Boy mi nga xam ne kon nekkoon ay jamono recteur bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moom mi nga xam ne kon ma ngay joxe xalaatam ah, ci waxtaan wu jëm na ci wàllu candidature bi nga xam ne kon mooy samp ndëdu président Macky Sall ci joŋante présidentielle 2024 yéeni kaay bi muy xëy di kii di borom xam-xam bi xëy di nettali rek ne luy ci man di nemmeeku jamono ji moom président Macky Sall mi ngi jano ak li nga xam ne kon moom moo di ak ëllëgëm doon destin ah, ba tey moom nag jamono ji muy xam le ne moom mooy xool naka rek lay mën a def ci li nga xam ne kon moom moo di ab taxawaayam waaye tam lu mu ci mën di def day loole doo bokk na ci loo xam ne kon lu koy topp a a ndax dal loolee lu mat a xel ci wàllum université dakaractu.com moo xëy di ñu xamal ne université bi nga xam ne kon mooy ISEN si doon université El Hadj Ibrahima Niass ba ca Kaolack ñoom demoon nañ siyaare ji xalif général des mourides Serigne Mountakha mu Serigne Bassirou ma doon amal ak ngaan foofee ca Kaolack fësal nañ fa seen yéene yéene kaay bi nekk internet bi Dakar Actu moo xëy diñu xamal ne la may loole nag mel na ne teggi nañu ko niki ren ji lañu bëgg rek mooy bàyyi màkka nañ daan aji màkka képp ku bëgg a dem ñu bàyyi la nga dem yéenekaay bii di emedia point sn moo xëy dinu xibaar lu ni mel da yéenekaay bi ba tey bi na caa juddu ndax nag waa Maroc yi nga xam ne kon seen di xamal ne a demee gënu bëggoon rek mooy ñu jox leen digal seen roppalaan jóge ci Casablanca foofe ca Maroc wàcc fi nga xam moo di Constantine waaye nag waa Algérie danoo lànk ne na képp ku fay ñëw da nga wàcc Alger dooga dem feneen fooy dem waa Maroc nag mujj nañu gedd yéene kaay bi ne kay jafe-jafe politique ci diggante ñaari réew yi moo amal lu ni mel mbokk yi yéene kaay ngoog dig di jëlëg li gën a fës ci yéenekaay yi. Papa Saer Mbaye